lañu ñëw ci suñu mission voilà ci instruction coordonnateur national Mass Thiam donc mu yebaloon ñu fi pour que ñu remettre à niveau les point de vente de de mouton donc euh, c' est dans ce cadre la ñu ñëw tey euh, terminus Liberté 5 voilà fekk nañ fi malgré que fekk nañ fi ay borom xar yoo xam ni bougé wuñu mais quand même ñu entamé le travail de nettoiement pour que nu mu meloon avant tabaski bi ñu mën ko delloowaat noonu waaw tey mooy sunu mission ci point bi. c' est vrai que c' est un peu difficile ñoom bu ñu demul comme ni ñu ko bëggee. mais comme ñu ngi fii amuñu choix donc on essaie ñun au maximum de rendre le site propre de sorte que ñoom même bu ñu demee sax lu fiy des pour ci nettoiement du bëri donc même avec une équipe restreinte tey moyens yu ñu fi déployé fi déployé waat voilà donc euh, moo moo waral aussi ñu insister malgré que ñoom seen présence donc ñu ñëw euh, nettoyé quand même euh, site bi ak suñuy équipe. on a un programme donc boo demee HLM point de vente bi nekk ci wetu église bi donc nettoyé nañ ko ba mu set démb donc démb au même moment aussi ñu ngi bi nekk donc euh, ci week-end bi nag point de vente bi nekk boulevard euh, Gueule Tapée diggante Fass ak Médina moom lañ nettoyé donc euh, c'est un processus di continuité la donc commencé nañu foofu ba ñu paree ñu ñëw rond point 5 nar continuer ci deux liberté 6 yi. Dakar 1 boo ci ci ay jamono Dakar euh, benn département la woon UCG aussi ñëw épouser contour départemental bi def benn créer benn coordination départementale mais coordinateur Mass ba mu ñëwee depuis le mois de février après ay xalaat yu bees juddu donc ñu xaaj Dakar en deux coordinations l'objectif nag mooy c'était ñu gën a efficace ci sunuy activité donc parce que dakaar ñëpp xam nañ ni dafa dense donc benn nit pour mu gérer ko c'est un peu compliqué moo tax ñu xaajon ko en deux def Dakar 1 ak Dakar 2 Dakar 1 nag c'est les commune de Plateau les communes de Gorée Médina Fass Colobane Gueule Tapée HLM Biscuiterie Grand Dakar euh, Fann Point E Amitié donc Sicap Liberté Dieuppeul Derklé ak Mermoz Sacré-Cœur ah boo xoolee sax depuis coordinateur ñëw ay innovation yi ñu def ci stratégie UCG donc benn bi euh, bokk na ci ay point de regroupement normalisé yi ñu créé donc boo demee tey bo fi jógee boo demee juste ci ginnaaw ci ginnaaw station Shell bi di nga fa fekk benn case mu ñu defar ak ay grilles yu verte def ci ay bac ci biir donc te dañ koy wëyal di ko programme programme la boo xam ne dañ koy wëyal di dem donc l' idée mooy que au niveau des quartiers mu am ay points de regroupement de proximité donc pour que population bi même bu oto bi teelul ñëw sax wala dara ñu am moins benn réceptacle boo xam ne mën nañ fa def seen i mbalit mais au delà de ça suñu système classique bi oto yi mi ngi ñëw chaque jour ci koñ yi donc li ñuy ñaax askan bi rek mooy ñuy garder seen i mbalit bañuy bañ di ko génnee te oto bi yegg seegul parce que parfois euh, ay envol mu am ay euh, animaux yoo xam ne dañ ñëw di ko tas donc yoo xam ne day gën a méttil tamit suñuy liggéey donc euh, ñu leen ñaax rek donc euh, voilà ñu gën a participer ci effort de salubrité bi ñu nekkee voilà. waaw loolu mënul ñàkk ci système je pense un système euh, au-delà de mbalit mi sax peut-être am na système yoo xam ne aussi noonu la demee mais teewul ñun comme suñu mission lañu ñu ne même bu am rek nag mais bu amee aussi automatiquement bu ñu ko réglé on essaie de remettre rapidement à niveau ville bi niveau de propreté bi mu am donc mais c'est vrai que c'est des choses parfois mais na am. boo xoolee depuis pratiquement deux ans loolu ñu doon euh, ragal quasiment amul depuis deux ans on fonctionne correctement et autorités yi aussi ñu ngi ñu ciy bu baax. waaw ñooñu c'est des partenaires privilégiés donc la gestion des déchets est une compétence transférée aux collectivités locales donc l'ICG déroule un programme pour les collectivités locales donc euh, mairie yi vraiment suñu partenaire de premier plan lañu donc on travaille étroitement waaw bon di jaajëfal ñëpp di baalu ak askan bi suñuy collègue de travail donc euh, di remercier aussi population bi mais aussi di surtout sant les techniciens de surface de l'UCG waaw nga xam ne ñoom ñoo ne ci terrain bi di def liggéey bu am solo